dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gii nga xam ne nag moom mooy réew mi quotidien dafa daal di xëy dellu si ci couvre-feu bi ak nag takk der yi doxalin bi nga xamante ni moom la ñu doxalee moom nag mu daal di koy jàppee daal maanaam ay giraawaale kii njombe ak i toj-toj yoo xam ne ñoom takk der yi dañu ko daal di def rawatina ñi nga xam ne nag ñooy waa police journalub groupe promo consulting bi moom sax daf ko daal di jàppee ab faux pas tax nag ñi nga xam ne ñooy avocat yi ñoom daal dañu koy naqarlu ba fa naqarlu yema police daal di génne <laughs> moom tim daat nay lu yenn doxalin yi waaye nag daat nay wax ne askan wi ñoom tim seen bopp dañoo war a toog ci seen kër bañ a jalgati li nga xamante ni maanaam moom mooy loi bi Guy Marius ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci réew mi quotidien moom nag di sàkkuñu ñu daal di ubbi ab enquête ci taxawaay bi nga xamante ni takk der yi daat nañu koy taxawee maanaam di dóor askan wi ci loo xamante ni teguñu ko fenn yéen kaay gii di libération ñu fekk fa waa yaanaa maar ñoom nañu koy naqarlu bu baax a baax journal bii di la témoin mu ñu xamalal ñu Sénégal nag jamono ji ma ngi si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nit ñoo xamante xamante ni amee nañu coronavirus benn rek moo tee Sénégal egg sa san ya tey ji nag maanaam mbaadu Sénégal du egg maanaam san wala nag lu ko daal di ëpp libération yéen kaay mu ñu xamal naa ñu li am ba des kay mooy cent yi jamono ji nag Sénégal daal dina koy jege loola yéen a gii de la turbine mu ñu xamal naa ñu law gi nga xam ne jàngoroy coronavirus ma ngi koy daal di law ba léegi ni nag maanaam arrêté guñ ko ci Sénégal ndax saa suñu xëyee rek maanaam kaay nag di g a yokk ni ki fukk ak ñett daat nañu koy amee lépp bi ñu ko xaymaa toll nañ si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent Sénégal nag daat nay fàcc juróom-ñeent ci ay cas ma ngi ci journalub groupe promo consulting bi di réew mi quotidien waa grand place mu ñu xamal la ñu bëri na ñoo xamante ni daal daw nañu réewu taax dem ca réewu kaw fa nga xam ne fa la ñu fekk baax maadu nag du ñu fa yóbbu jàngoroy coronavirus ji wala ka ñi nga xam ne ñoom la ñu fay daal di fekk yéen a kaay gii di source a mu ñu xamal la ñu takk der yi ak seen taxawaay jëm nag ci tas mbooloo yi am na nag ak céet goo xam ne ca tayif ay taalibey Serigne Modou ñoo ko doon def laas yéene kaay mu ñu xamal la ñu nag police ci boppam maanaam police yenn ci ay policier maanaam seenu doxuli na journal bi di Vox Populi mu ñu xamal ñu ñàkkuk oto gi ak nag mesure yi nga xamante ni jël nañu ko si tax nañu bari nag daan nañuy confiné wu ci loo xamante ni maanaam neexule na ndax amuñu lu leen yóbbu amuñu lu leen indi ñenn ñi sax dañuy mujjee toog ci seen kër yéen a kaay gii di libération mu ñu xamal ñu law gi nga xam ne jàngoro ji ma ngi koy law ak fi mu ëppee daal nee na nag ndakaaru la ndax toll si ñeent fukk ak juróom-ñeenti nit daan nañu koy amee enquête yéen a kaay mu bi nga xam ne moom la ñu waroon a def ci covid nga xam ne ñooy leader d'opinion yi maanaam taxawaay ba nga xam ne moom la ñu waroon a taxaw taxawee nañ ko ñi nga xam ne ñoo am kàddu maanaam ci gàttal yéen a kaay gi de la soleil mu ñu xamalaan ñu ngir nag jàppale askan bi ci lu jëm ci seenug dundin tax na état bi nag dajale lu toll ci 69 milliards yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu opération gérons enfant ci yoon wi ci mbedd mi loole nag ci boppam moom la Ndeye Saly Diop ministre bi ñu dénk wàllum jigéen ñeeg xale yi di nag yëkkati maanaam daal mbedd mi bugguñu faa gis benn xale rawatina nag ñi nga xamante ni maanaam ñooy taalibe yi journalub groupe meeting bi moom nag daat na ñëw def ab bilan ci couvre-feu bi nga xam ne maanaam moom la police euh, njëkk def ak nit ñi nga xam ne teg nañu leen loxo ak oto yi nga xam ne jot nañu ko daal di jàpp journal bi de la mooy naka may ma ma daal di yeggale lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay oto la ñu teg loxo lu toll si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay nit yoo xam ne daat nañu leen di jàpp yéen kaay gii di libération mu ñu xamal nañu ñi nga xamante ni nag maanaam ñi doon dundal ak di leen jàppale ca bitim réew la ñu nekk jamono ji nag dañoo am ay jafe-jafe ndax moodu moodu yi jamono ji liggéeyatuñu moo tax yónnee xaalis rawatina ñi ñi nga xam ne ñoo nekk Espagne Italie ak France ndax ñooñu nekk ci ab confinement grand place yéen kaay ñu fekk fa nag waa kuréel gii di sunu moomeel ñoom nag nee nañu daal cinquante yi nga xam ne Macky daat na koy wax ngir nag jàppale askan wi bu ñu ci fàtte benn yoon ñi nga xam ne ñoo nekk ci monde rural bi maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi yéen kaay gii di 24 ñu fekk fa professeur Moussa Seydi moom nag la mu xamle nee na coronavirus daal la daat nay dëggal ñu fekk fa professeur Raoult moom nag mu daal di ràññeeku lool ci lu jëm ci wàllum faj gi ca France ca gox bi ñuy moom nag daat nay wax ne chloroquine lu baax la ci jàngoroy coronavirus waaye nag malade bi bu demee nag ba toll benn jamono ji dootu ko mën a faj maanaam nag bu demee ba nga xamante ne mbir mi ëpp nay su koy doog di daal maanaam su ko jëlee jàmm rek lay daal di ama yéenekaay gi de la témoin ñu daal di fay fekk benn virologue bu fekk baax ca diiwaanu Israël moom nag daat nay woo njiitu réew ñu ànd ak dal maanaam panique bi nga xamante ni moom la ñuy def jamono jamono ji amul benn njariñ maanaam di rambax-rambaxi moom virologue bi daa di wax ne maanaam lu fi jar téll téll ji ci boppam jàngoro ji daf ko fee amul ndax jàngoroy coronavirus bëri na ñoo xamante ni da leen di dal ci askan bi dana dem ba jeex si ñoom te sax duñu ko daa di xam daa di nay wax ne ñi nga xamante ni ñoom lay faat maanaam ñu mag ñi ak ñi nga xamante ni daal dañoo amee woon nag jàngoro ju méttee métti yéenekaay gi di sunu laa mu ñu xamal naa ñu Eumeu Sène ginnaaw bi Modou Lo nag nangoo li nga xam ne mooy roi des arènes bi ci moom ndax Eumeu Sène dina daal di mën a jugaata yéenekaay gi di stade mu ñu xamal na ñu Sadio Mané Ismaïla Sarr Kalidou Koulibaly ak Mbaye Niang ñeent ñi daal ay doomu réew Sénégal lañ yoo xam ne équipe bu nekk daat na leen di soxla journal bii de la témoin daal di koy jeexale nag ak lu doy waara doy waara ñi nga xamante ni ñooy prostitué yi maanaam ñi nga xam ne ñooy jaay seen bopp ñoom na jamono jii dañoo sonnu la waral mooy coronavirus bi gisatuñu kenn rawatina couvre-feu bi ñoom ñi nga xam ne nag ñooy prostitué yi di jaay seen bopp ñoom nag dañuy sàkku état bi daal leen di jàppale maanaam gestu leen ndax gisatuñu benn client